asalaamaaleykum mbokk internet Baol TV mbégteeg bànneex tey lay am di dalal ki nga xamante ni mooy ndaanaanu ndaanaan yi mooy Serigne Abdoulaye Souaré xam-xam màcc lool si wàllu faj cosaan ak aada fii ci réew bi ak bitim réew tey moom la ñuy dalal askan bi nag namoon ko gëjoon ko gis lool mu gëjoon génn lool sëñ bi balaa ñuy dugg si laaj bi dañ lay bàyyi nga nuyoog askan bi la suivre si Baol TV Cheikh bi asalaamaaleykum. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diini iyaaka naxbudu wa iyaaka ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina anhamta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin amin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waaleykum ñoo ngi lay fay alhamdulilahi rabil alamina eh, di nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu waa àddina di nuyu waa Sénégal di nuyu kilifa diina yëpp di nuyu kilifa aada yëpp bàyyiwuñu jar waa diaspora bi bàyyiwuñu kenn waaleykum asalaam wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf kooku mooy Serif Abdoulaye Souare xam-xam màcc lool jëm si wàllu faju cosaan fii ci réew mi nag ak bitim réew seex ñu dugg si waxtaan bi mooy ñu wax si wàllu sax xam-xam màcc lool si wàllum seet ba képp koo seetal ñaanal ko yàlla ajum faju waaw te seex bi loolu ñu mën a wax ci loolu waa sant yàlla rek alhamdulilahi rabil alamina dafa am loo xam ne ñun sàkk luñu ko suñu bopp dañu koo fekk waaye bi ñu ko fekkee tamit bu fekkoon ne toppuñu ko kon li ñu ci war a am wala li ñu ci war a man duñ ko man dañoo am way jur mhm. mu tudd alaaji amandate soirée mhm. grand marabu a sancu tabanaane mhm. mu jur ma may doomam di taawam jël ma yóbbu ma daara ma ñëw jàngi ñibbisi mu tef ma ci côtéem yaakaar naa fu ma mas a taxaw ci àddina ànd nañ 30 ans man ak moom. dëgg la fu ma mas a taxaw ci àddina. ak président bu ko mas soxla fii ci réew mi. Mm-hmm. ngay ñëw wala di ko jëlee man ak moom ñoom ñooy ñun ñaar ñooy ànd. fa tabaarakallaahu tamit mu jàngal ñu jàngal ñu alxuraan jàngal ñu sariya jàngal ñu baatin xamal nañu bëree bëree bëri mm-hmm. bu dee ci wàllu seet googu nga laaj tamit alhamdulilah rabil aalamiina am na ci nuñ ciy yëngoo. Mm-hmm. bu dee ci wàllu seet googu nga ñu laaj am na ci nuñ ciy yëngoo. Mm. tey jii moo xam nit nekk fii ci Sénégal ñu nekk fi mu ñëw toog suñu kanam léegi bu noo waxee soxla wala bëgg ñu xoolal ko tamit xam nga doomu aadama mënul ñëw rek na la ñaanal ma nga ñaanal ko. doomu aadama dafa am ay seekal dafa am ay yoon. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax nit ki bu ñëwee di sàkku ci yow ñaan te yaakaar yàlla ak bi yaakaar la. Mm-hmm. bu ñëwee mën nga xool. boo xoolee mën nga ci xool am ci ndam man nga xo tamit te doo ci am ndam. la la ci yàlla ci woon ci ay sarax ko ko mu ko boppam su fekkee ko booleeg moom man sañ libaas man ci kurus laay seet kurus man ci kurus laay seet kurus boobu nag seet bi ñu maanaam fi muy génn mu ngi ci alxuraan ci moom la ñu suñu waajur nàmpatal moom la xam hmm. beneen bi ci desit nag ci bu dee ci wàlli faj bi la hmm. loolu moom tabaarakallah walhamdulilah rabbil alamin alxuraan moom lépp a ngi ci. waaye ñun suñu waajur dundoon na cent quinze ans. Hmm. amoon na téeméer ak fukk ak juróom. yàlla xam na ko wallaahi. te it yaakaar naa fii ci réew mi président yi fi njëkk Senghor la te yàlla boole woon na koog moom. Hmm. te ba koy yàlla di booleeg moom Caroline Faye moo doxoon loolu. te booba Caroline Faye moo njëkk nekk sama taal bi Pape. beneen bi ci ne booba Babacar ba muy dox yàlla boole kook samay jur te booba bi muy wàcceel samay wayjur ay puuso mbaar di ko wàcceel marqué Datson booba xale bu ndaw la dëgg la mm. euh, seex bi loolu am na solo mais seex bi ñu dem si wàllu ki nga xamante ni nekk na bitim réew yàgg fa loolu soxla këyit parce que da ngay gis boobu ba léegi am na ñu bëgg a ñibbisi mënuñ ñibbisi dañ fay yàgg def fa ay deux ans trois ans ba dix ans sax mm. pour ñu gis seen njaboot sax problème dañuy amul pour ñëw gis seen njaboot mais duñ ko mën ndax këyit bee leen di jafe mm. te yow yaa ngi liggéey ak askan bi ñu bari di leen jox këyit waaw xam nga nag libaas pour ñu waxtaan te yàlla tax. Mhm. xam nga bitim réew. Mhm. fi mu nekk nii fees na fees goo xam ne métti na métti goo xam ne booy dem bay wax ak nit ñi. da ngay wax ak nit ñi te yàlla tax. yàlla tax waaye bul wax loo xam ne. Mhm. pour doomu adama yi di la dëgg di la wursi di la jox seen alal nga di ko lekk seen aju du faju amul njëriñ tey ndax loo ci def tey boo ëllëgee. dinañ la dugal ci bàmmeel nga des ak yàlla. ndax doom maanaam Europe na mu meloon melatu ko. waaye lu mu métti métti métti ñaan mënut ñàkk. mënta ñaax ndax mbir moom lu mu métti métti rek yonent moo ñu ko jàngaloon bu jafe-jafe amee sàkk ju ñaan ngeen ñaanal seen bopp ndax adduwaawu silaawul moom ni na ñaan mooy ngànnaayu jullit te tamit am na ci loo xam ne bu ko nit ki bëggee te yàlla di la jàppale faw muy am cadre ñaan yoo xam ne ñaan yu assuré lay doon waaye du ñaan yi nga xam ne tey moom laa gis nii du dëgg ñëpp nag ci boroomi xam-xam jox naa la seen wàccu waay nangu naa seen mbir ndax nit li la yàlla may soo ko doyloo te nangu ko mm-hmm. nit ñi di la ci wursi nga di ci faj aajo sa beneen morom tamit war ngaa xam ne yàllaa koy jox ndax xam-xam géej la boo jëlee sa paan li nga xam keneen li mu yor tamit moom la ko yàlla sédd mm-hmm. mm-hmm. na nga sédd sa sa borom ndax meloon démb ak tey du benn kon foofu waaye tamit na ko teg ci kaadaru xaqiqa ak kaadaru dëgg ak kaadaru sa diggante sa borom lu wér dëgg la dëgg la jërëjëf bi loolu am na solo kooku mooy Serigne Abdoulaye Souare xam-xamam màcc lool si wàllu faj cosaan ak aada fii ci mi ak bitim réew ku ko bëgg jot da koy jot si numéro yooyu di affiché si baaru écran mooy whatsapp bi mooy 77 416 0006 ma bamtuwaat loolu ko 77 416 0006 Cheikh ba léegi ñu bëgg na maanaam nga noobal ko nit waaw mooy noob boole maanaam. waaw xam nga noob am na solo. waaye juba ko juba ko juba ko jiitu. juba ko bu dee jigéen buy sëy la. bëgg ñu téel la sa jëkkër fondement bi mooy jub. boo jubee rek li nga bëgg da koy am buñ la ñaanalee rek waaye gis nga tey bâtiment bi boo ko doon yëkkati te fondement bi jubul loo ci teg mu dëng nit nag bu bëggee ñaanlu faw muy ñaanal boppam ndax nit dana am ñetti mbir yoo xam ne su ko dul defal boppam dinañ ko ko defal suba te du ko jariñ dara boo dul julli bés dana jot ñu jullee la te du am njariñ boo dul ñaanal sa bopp bés dana jot nga faatu ñu dala jàngal ay kaamil du la jariñ dara bu fekkee ne ko doon sangu bés dana jot nga faatu ñu sanga la farata te du la jariñ dara kon ñett yi yëpp nag benn bu ci nekk boo koy sàkku ci nit ki te bëgg mu jëriñ la yow yaa koy commencer sa bopp feneen foo dem rek bunt yi day gaaw a ubbeeku waaye jamono ji nag dafa nekk jamono joo xam ne pour nit ñi da nga leen wax lu neex ñu daw wursi la di leen nax ñu wuti la waaye boo leen waxee dëgg ñu sori la waaye ñu sori la nag nga ànd ak yàlla moo gën tamit ñu jege la yàlla sori la. dëgg dëgg loolu am na mais da ngay gis jigéen joo xam ne yàgg nañ si néegu sëy mais pour mu am si doom doom da koy jafe lool dool seex ba te dégg naa yaa ngi ciy liggéey lu am solo lool wàllum. waaw loolu sant yàlla la ba tey dañ ciy liggéey tamit waaye ni ñu koy liggéeyee mooy tamit maanaam am na loo xam ne ci mag ñi lañ ko fekkoon di ko def bu dee nit ki dafa bëgg am njaboot te njaboot ko mhm. am na tamit nit am na lu muy xacul te gënul ci moom am na lu muy bañ te moo gën ci moom waaye loolu yëpp walaa axlam mm-hmm. mm-hmm. ndax nit a nit a ngi bëgg doom lool mm-hmm. di ko sàkk lool di dem ci hôpital bi gynécologue bi dem ci sëriñ si ñu di la ñaanal bés jot doom jooju juddu rek nga jàggi ko dem loolu yàlla na nu ci yàlla musal waaye doomu aadama daal lépp lu mu gis ci boppam war na ci jiital yàlla jiital ci tawhid jiital ci gëm yàlla waaye tamit am na loo xam ne dina gaar nit te loolu leneen a koy def mm-hmm. waaye am na loo xam ne boo koy jox jigéen te mu bëgg njaboot su mënee aar boppam mën a téye boppam mm-hmm. nga xam ne du def leneen lu dëppoo lu dëppoo safaan mm-hmm. wallahi tallaahi yàlla dana ko defal sutura nit nag mënul dara nit xamul dara ndax doomu aadama lu mu dugal loxo mu sotti rek yàlla la soob dëgg la dëgg la jërëjëf Cheikh bi mais Cheikh bi am na liggéey bu am importance bi ngay defal askan bi ñu siy teg seen bët di si gis seen bopp te du doon loo xamante ne ay lay doon yaa ngi ciy liggéey lu am importance mais dafa am ñoo xamante ne rek dañ doon laaj ni maanaam ñoom ñi nga xamante ni sori nan te bëgg nga liggéeyal mooy waa feebar boobu nga xam ne moo lëmba jamono muy wàllum tële waaw ngeen baal ma tël tële moom ñu bari yaa ngi leen siy liggéeyal ñu si gis seen bopp mais am na ñoo xam ne dañuy nekk fii bitim réew ba nekk ci génn Sénégal mais dañuy bëgg nga liggéeyal leen ci ñoom nan ñuy def ba nga liggéeyal loolu te duñ déplacé wu ñëw fii waaw xam nga sëñ libaas nag hmm. maanaam dafa am lu am hmm. jamono ji tamit dañu toll foo xam ne boo xoolee ci wàll tële boo xoolee ndaw yi sax lay gën di dal. lay gën di dal ndax tamit nit su fekkee ci sa dund dafa am ci foye goy foye ci sa bopp topp sa bakkan dafay am loo xam ne loolu yow yaa ko teg sa bopp. mais dafa am ñaar yu nit. nit dana am jabaru rab wala mu am rawaan loola di ko tëleloo. muy wàññi kàttanam boo soree sa soxna da ngay nekk te boo ko jegee doo nekk loola tamit am na ñaan te ñaan yooyu tamit bu buñ ko xoolee xam ne yàlla méngaloo nañu rek insha allahu taala yàlla dana def jàmm beneen bi ci des mooy bu dee ci wàlli ubbeeku la ci wàlli teraanga yàlla di ko may nit ni ñu fekkoon su ñu way juri di ko liggéey noonu rek lañ koy liggéey waaye nag ñun li ñuy liggéey duñ ko wax nit jaxaran duñ ko wax nit jaxaran ci internet bi de ndax baatin baatinun la baatin lu ñuy nëbb la amuñu jaar bu ñuy wane amuñu ndomb gu ñuy wane. waaye am na lu ñu xam te yàlla may ñu ko ñu ciy jëflanteeg nit ñi ku mu tegee sa loxo di nga am. waaye lépp ci alxuraan bi la daal. lépp ci alxuraan la lépp ci alxuraan la ku ko soxla ku nekk boo ñu contacté incha allahu taala yàlla dana defal teraanga. Cheikh bi dëgg loolu am na important mais ñu dem si li nga xam ne mooy yi nga xam ne bëgg na am am bu gaaw daal maanaam soxla am am bu gaaw te am bu gaaw te te taxaw daal bañ a bañ a doon lax ni fes daal maanaam. sant yàlla alhamdulilah mooy li ma wax léegi rek maanaam am na loo xam ne ñun bu fekkee da nga koo soxla nga am numéro bi suma tur mooy Chérif Abdoulaye Souare doomu Serigne Alaaji Amadou Souare grand mar bu asan ci tabanaane hmm. sama numéro téléphone 77 416 0006 boo ma wooyee ci téléphone bi nga wax ma sa soxla hmm. ni nga ko bëggee hmm. insha allah wala nga laaj ma na ma war a demee danaa la ko wax te bu ma la ko waxee teg la ci yoon incha allahu taala bu nu yàlla jàppalee. billaahi wallaahi tallaay darajay alquran yàlla dana teral ba ngay teral say noonu. loolu moom sikk nekku ci. waaye nag du wut loo baatin moom. du wut loo xam dañ koy publier. du loo xam dañ koy wax ci télé bi mu leer ñun amuñ jaar bu ñuy wane amuñ ndomm gu ñuy wane waaye nag am nañ baatin boo xam ne. ku nu yàlla booleel ñu jëflanteeg yow ca loola. incha allahu taala di nga am ndam di nga am sutura di nga am teraanga. bu dee mucc nga bëgg. Mm-hmm. di

mais lan lañ mën a def ba feebar boobu dañ ak lan lañu si mën a wax. waaw boobu de sant yàlla rek. Mhm. ndax ñoo nga ciy ñaan ni ci jullit yëpp di ñaanee. la waaye nag ñun comme ay ndaw lañu. Mhm. amoon nañu kilifa. mu am ginnaaw bi mu nekkee bokkee ci xeetu yonent bi salaay salaam am fu mu jox ko bokk ci tarixa seex bokk ci kër Sidaaj Malick radiyallaahu taala anhu gisuñu ko waaye gis nañ njaboot Sidaaj malik mhm. te it dégg nañ Serigne Mbaye Sy Mansour yàlla na yàlla yokk. fanam te taas ñu ci barkeem moom ak xalifa sénéro yi nekk ci Sénégal yépp yal na yàlla jàppale leen te dimbale leen bi jaay séddil waraa am na ñaan yu mu joxe comme ay ndaw lañ nag te am nañu kilifa ñaan yooyu mu joxe dinañ wéeru ci ñaan yooyu di ko doxalee ni mu koy waxee ñun jullit yépp yi sëñ Muntaxa joxeek yi beneen xalifa joxe yëpp nañ jàpp ci loolu waaye comme ay ndaw lañ nag mënatuñu wax lenn loo xam ne kilifa yi wax nañ ko ci biir xam-xam boobu waaye daal lu wér daal ñaan am nañ ko dinañ ñaan boole ko ñaari kilifa yi yàlla jëlee ko fi te am na yaakaar nit yàlla na ko fi yàlla jëlee barki yonent bi salaay salaam jërëjëf ki ñu dalaloon mooy sëriñ Abdoulaye Souare Sërif Abdoulaye Souare ngeen baal ma mu numéro téléphone yooyu wa yàlla gën a santaat yàlla rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën am suñuy ñaari wayjur di gën a bëggaat Seexu Tijaan si rifla day la taala noog bëgg njaboot ak si daaj Maalik yëpp bëgg jullit yëpp di ñaan yàlla yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def sutura yàlla yàlla na ko fi yàlla jëlee fi mu nekk tamit yàlla na ko fa yàlla jëlee fi mu yàggagul yàlla na yàlla aar leen ba ba mu fa yàgg ñi tëdd tamit yàlla fëgg seen bopp may leen wér ñi ci kaso yi ñi ci hôpital yi te du feebar bi sax yàlla may leen si faaw di jaay séddil waraa koor gaa ngi nii ñu jikko jub si yegg si na mm-hmm. yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génn alhamdulillahi rabbil alamin liñ ciy xalaat yópp ne koor gi ñëw na jafe-jafe am na mm-hmm. corona bi liggéey amul mm-hmm. yàlla moom moo yor dëgg la moo jël suñu bopp bàyyi ko yàlla insha allahu taala te it man xaama ramadaana imaanan wa ihtisaaban xufira lahu maa taqaddama min sanbi ko maa taaxara yal yàlla defal ñu jàmm bi jaay saydal wara alayhi salaatu wasalaam maa ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp mm-hmm. jërëjëf